Sénégal vous offre votre revue de presse. guddi tey jomaay ca pale turbine yéene kaay naan maan baay baay président Macky Sall ngelaw nangu tey jii la Bassirou Jomaay Diakhar Faye di waat ci kanam waskan wi ay chef d'état ay ministre yoo xam ne ñu ngi leen dénk bitim réew ay président d'institution ñi ngi fii ci Ndakaaru di xaar tey jii waatuk Bassirou Jomaay Diakhar Faye gii président bu Guinée bu Ghana bu Cap-Vert niki noonu bu Mauritanie ñu ngi leen di xaar xaarandi ci suba tey jii ci Ndakaaru lépp nag ci waatuk Bassirou Jomaay Diakhar Faye bii ci bëccëgug tey jii ca waat ci kanam waskan wi moom président Bassirou Jomaay Diakhar fay lépp nag mënees na ko bindaat ci taarixu réewum Sénégal l'indépendant yéene kaay naan kon moom bas war a waat nag ca sikaat centre international Abdou Diouf bu jam ñaajo ci kanamu ay nawle chef d'état l'enquête naan kon wuré wa dem na këng tey jii dees na jébbal lenge yi Bassirou fay Faye ni ki tey du tëdd ci klal teraangoowul robbuk chef d'état ni ko article 36 ak 37 bu constitution bu réewum Sénégal bëggee moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye tey lay dégg président de la république le témoin naan kon loxo ba ca kaw jaxaar fay maa ngi waat 24 heures yéene kaay naan kon day waat ci kanamu borom bi waaye waat ci kanamu sénégalais yi nga xam ne ñoo ko dénk nguur gi le témoin naan kon wii loolu lañ koy amal yenn ci ay patriote ña ngi koy naqarlu réew mi ko dijee naan kon président bi nar waat tey jomaay jaxaar fay président la bu këlbët lépp loo xam ne amoon na ci réew mi mooy président bi gën a néewi at ci juróom yi nga xam ne jaar nañ ci Sénégal mooy benn opposant boo xam ne def nañu élection ci wërngal wu njëkk ba mu jël te ndam la moom président Bassirou Jaxaar Fay mooy président soxla ci réew mi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mooy président bi nga xam ne mësta am mandat boo xam ne dañ ko caafal waaye tam mësta am responsabilité ci exécutif bi terewul nag mooy juróomeelu président bu réewum Sénégal li la yàlla dogal l'observateur nan kon moo taxi talaatay tey jii bu Bassirou Diomaye fay war naa dugg nag ci taarix ma nga bàyyeekoo ca kaso moom Bassirou war a fanaani tey jii ca palais Bassirou yéen kaay futur média bi naan kon président boo xam ne laaj na njàngat ci wàllu psychologue yi li tax fa mu yegg ca pale ba tey moom Bassirou Diomaye Faye moo tax Sud Quotidien mel ni ku naan lu waay waxoon na ca waat ndax moom Bassirou Diomaye Faye dina ni copp ci kaw tey daal di waat rango mbubum njiitum réew ci Sénégal deux minutes pour lire l'essentiel naan kon président Macky Sall di tàggoo moom Bassirou Diomaye Faye jël lenge yi yéen kaayub dee média bi naan kon na yéen wéef yow Bassirou waaye Sall daal dem na Walf Quotidien naan kon dem na daal di yóbbaale Amadou Ba lu faluk Diomaye gi neex neex bu leen fàtte ni moom Sall ci boppam moo sacrifié Amadou Ba fa News naan koon ba tey ci waatu Basiru Jomaay Fay gi ñoom taskatu xibaar yi dañ leen bàyyee seen bopp dañ daan jébbale ay woto yu daan yóbbuwaat a jam ñaajo tey nag présidence dafa bankaay loxoom naan leen débrouillewu leen su leen neexee ñëw su leen neexee toog yenn kaay bi naan koon luy problème bi mbaadu nanguur gi dafa naqari deret ndax waxtu yu mujj yi ko fi dese ñenn ñi sax direct news naan ña ngay laaj ndax président Macky Sall bëggul këppatal ni ki tey waatug jomaay gi ñu ne déete waay moom Sall ko xool mu fal nomination yoo xam ne mi ngi mel ni tulleeg maale yéeni kaay bi naan koon ak lu mën a am moom président Diomaye mi nga xam ne ci séeréer mooy tekki honorable tey jii dees na ko honoré libération yéeni kaay nan kon palgaa ngi mel ni tulleeg man la ci réew mi moom kabili tura ca Sonacos ma ngoy fal ña ko saf nguur gi soppeeku na terewul fukk ak benn ci ay doomu aadama daal dina leen di def ay directeur Abdou Fati daal di xam leen ni ay téeméeri téeméeri jàngalekat daal dinañ leen di recruter ci loo xam ne teguñu ko ci yoon anak mu ñu gas ba mu xóot daal di koy suul docteur Abdoulaye Bousso jàpp ne scandale la yéeni gi ni wax dañ ko roof ci armée amul bés bi le jour naan kon Sall wan nu ginnaaw ni ki tey ñaari fan ci weeru avril ma leen di xamal na kan mooy président Macky Sall bi nga xam ne doomu pël la daal di màggee ca dëkku séeréer ya yéegam moom président Macky Sall wàccaatam ci suuf waaye tam ab dekkeem yéeni kaay bi naan koon guerre bi mu amaloon diggante maître Abdoulaye Wade Karim Meïssa Wade ak Idrissa Seck kéemtaan gi nekkoon ci gañe gi muy gañe saa su ay élection yéeni kaay bi naan maan ni mu defee ay réalisation ci réew mi noonu la ay ñaawteef baree ci nguuram ab bilan socio économique nag ñu koy laam-laamee la mu woon dees na bay dundee te du jéggaane réew mi ñu daal koy dàq ba jëmmi jamono démocratie ak liberté ñu caxat-caxatee ko ci nguuram l'info yéene kaay naan kon en tout cas ay gaayam Mansour Faye ma ngi leen di woo ci gore waaye tam ci opposition républicaine boo xam ne warees na cee mën a tënku Mansour a nga naan leen nañu boot ci ginnaaw président Macky Sall soob suñu loxo ci opposition boo xam ne deesul am ab laam-laamee du am tâche nañu gore gore wéttalu ko gore yéene kaay bi naan kon waxtu woowu moom Bassirou Diomaye Faye mooy président bu réewum tegul loxo ci assemblée national assemblée boo xam ni mënu koo seyal lu dul sa attumbar bii te fi mu ne ngir mu doxal ak programme am moom président Bassirou faaw mu am député yu wàllu yi am yu yeewi yi ak yeneen ngir lu mu digoon askan yu mën koo matale diggante tàqale sénégalais ak fonds politique yu président seyal au conseil collectivité territoriale seyal conseil économique social ak environnemental seyal au conseil bu dialogue social jël IGE ci présidence ba mu ngu faa noonu dafa di fa tam dee leen seen cëggal guy ñu daal di doxal yéeni kaay des média bi naan kon lii mënu koo def tànk saye lu ñu assemblée nationale ngir mu doxal le quotidien le quotidien naan kon urgence yi nga xam ne mi ngi xaar Bassirou Diakhar Faye bari na ci réew mi Dakar Times naan kon bokk na ci nag daal di yeesalaat institution yi ci réew mi libération yéeni kaay naan kon gouvernement gi des na ko samp fii ak ñaari fan ndax basa nga naan temps amul liggéey rek turbine yéeni kaay naan kon boobu day réew meeki njombeem réew meeki malheuram week-end bii daal dinay métti ci réew mi diggante île Canaries fukk ak benn ci ay màngaankat daal dinañ leen di wallu bokk na ci ñoom juróom ñett fukk ak juróom ñaar ci sénégalais waaye tam padduwaa nga xam ne ñetti xale yu góor ñoo daal di naju ci genn woto ñaari nit ñàkk ca seenu bakkan ab lakk gu metti daal di faat ab handicapé moteur ca Salémata l'observateur naan koon bus Dakar dem dikk daje na fekk taxi ci week-end bii ci VDN bi ñeenti nit ñàkk ca seen bakkan bokk na ci yaay ak ñaar ci ay doomam libération yéen kaay naan koon Seydina Mohamed Diop ma faatu woon ca Pikine juróom benn ci ay takk nga ca garde à vue ca division liggéey ca commissariat bu Pikine te boo moytul dees na leen toppee faatu bakkan ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm jërëjëf lay Thioub Ndoye ci li yéen i kay xëy fësal bu benn waxtu jotee sur